Ah, ñu ngi lay ziar di la kontaane waaw tey nag euh, li gën a yokk suñ teewaay suñu mag la di Saër Mangane euh, donc ñu bokk koñ bi ah, euh, di ci xale moo ñu yor moo tax tey bu mu nee xale yëpp bëggul ñu dem baali donc dañ ko daan def di taali pétale mu def lu mel ni mu doon loo xamante ni lu rafet la euh, donc looloo gën a yokk ndax suñu mag moo ñu yor xale donc loolooy suñu teewaay ci bis waaw je pense yaakaar boobu parce que ci la ñu nekk donc dañu topp ci ginnaaw suñu mag yi nga xamante ni ñoo jiitu donc seen ginnaaw rek lañ topp donc li ñu doon def loolu la ñuy jéem a ñëw def ñu ngi seen ginnaaw donc euh, gëm naa ni ñu ngi ci dinañ ci ñëw incha allah loolu damay kontaan sax ci tontu ji parce que donc li may wax rek mooy ñu yokk jom bi yokk fulla bi parce que donc di mën naa ne ñun suñu lépp ci leen ko def Euh, suñu lépp ci aar bi lañ koy def muy ñu yokk ful la yokk jom donc te gën ci góorgóorlu quoi parce que ku ci góorgóorlu di nga ci gis ndam donc ku la mën a raw ci góorgóorlu la ci ak ci jox ko li nga xamante ni moo di gëdd bi moom quoi euh, am na am na am na différent boo xamante ni donc damay wax ni peut lu euh, njëkk la ak léegi bokkul donc loolu rek laa ci seetlu muy xaw na différent un peu rek ci ni muy doxee waaw contentement bu wér a wér di kontaan donc mu ngi ko defee fi nga xamante ni sama fees la fi nga xamante ni fi laa def muy Daaru Salaam donc ma ci am kontaan contentement bu baax a baax euh, di lancé ci mi bonne heureuse année yàlla na yàlla def atum jàmm xéewal ak yërmande xéewal yëpp saawaan baawaan waaw am ci contentement bu rëy parce que te ñu 31 décembre ah, ñu ci def ñu ñoo toog fekkee ko teewee ko contentement lañ fi ñëwee ak mbégte parce que bu njëkk 31 décembre daan jot xale yi di dem di taali pétaal waaye di dem seen ak seer parce que seer li mu def nii tey lu rëy la te artistes yëpp la ko defal lu doon ni 31 mënoon a bàyyi xale yi ñu jugee Daaru Salaam ba mairie dox ko ah, ah. aller retour mais mu defal leen fête bu mag fii seen biir koñ kon sayer ngàcc ngaalaama waaw moo xam ni borom social la borom baax la képp kuy artiste rek boo ko seetee di nga xam kuy sayer kon nga franchement mu def ni lu ndaw parce que ñun la ko defal daal ñun la ko defal franchement mën nañu mooy ñu jàpp too bàyyi parce que aar bi moomu ko aar bi moomu ko te aar bi ñun ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a kon nag nañ ci jàpp gën a góorgóorlu métier la ñu métier li ma ci mooy contentement li ci ñaanal jàmm nag. di ñaanal ñi ne ci prison yi yàlla génne leen ñi tëdd ci lal hôpital yi yàlla yëkkati leen di ñaanal ñëpp jàmm yàlla def fi xaalis coowu aji saar gi jeex tàkk ñëpp am jàmm daal loolu laa ñaan non faama ñam faama laal faama laal comme ça dañoo invité baa ñu laal rek incha